ben il y a que lui décider parce que nit léeg-léeg bul fàtte ne waroo jiital sa orgueil waruloo mën a xalaat ne j'ai pas fait une bonne saison ou euh, jaral na la nga ne dama fay toog par force parce que loolu aussi tamit ci orgueil joueur la parce que ku xam Sadio xam ne pour moom ce serait partir sur un échec alors que tel n'est pas le cas tu es resté quatre mois sans jouer tu reviens dans une équipe boo xam ne elle était déjà en place c'est un autre football c'est un autre cadre donc pour toi mais warul tax nga ne obsession bi mooy il faut que ma toog fi coûte que coûte alors que quand on te met sur la liste des transferts là ça pose problème et ça devrait pouvoir te permettre de réfléchir en te disant est-ce que ça vaut la peine de tirer encore sur la corde est-ce qu'il n'est pas mm, c'est ça c'est tirer sur la corde mooy que damay toog coûte que xam nga quitte à ce que je fasse une année avant de partir et moi mais saison aussi pour ensuite s'en aller mooy li ma la wax xam nga bañ dem sur un sentiment d'échec moo koy dal parce que ñëpp dañ ne c'était pas la bonne saison mais pour mois c'est pas la bonne attitude à avoir parce que mënuloo parce que football ak corps humain dafa am lu mu laaj quatre mois boo ko toogee joué mënuloo revenir ci saa si nii loolu amul et on l'a pas mis aussi dans les conditions optimales pour pouvoir revenir à son meilleur niveau parce que club jour bu nekk da nga am sa standing dafa am noo toll ci club dañ lay jox gëdd bi dañ lay jox cër bi Paris Saint-Germain jamais au plus grand jamais doon nañu ñeme jël mbappe mu gaañu quatre mois après qu'il revienne à la compétition ñu koy xaarloo di ko joueloo ay bout de match jour boo bëggee mu revenir à son meilleur niveau et rapidement mhm. dafa am noo koy joueloo dinaa ko joueloo une mi-temps après dinaa pousse davantage soixante minutes après bàyyi ko mu def match complet et la tu pourras le juger mais jour bu ñëw nga koy joueloo ay un quart d'heure et parfois même tu le fais pas jouer xam nga y a des matchs yoo xam ne le garçon il se dit tey ah, ah, mais loolu la jour da nga koy accompagner après une blessure c'est toi qui le remets en scène yow yaa koy pousser à ce qu'il revienne à son meilleur niveau et joueur mental la te dafa soxla affection joueur yëpp mel noonu selon vous Sadio bon il y a eu un changement d'entraîneur et il est arrivé en, dans un groupe boo xam ne c'était pas évident boo xoolee groupe bu Bayern c'était pas Sadio Mané la star parce que aussi fekk na fa ay joueurs donc ñooñu aussi tamit. mais son transfert c'était oui mais loolu c'est le club. Hmm? mais vestiaire. mais ça le monde. non vestiaire. c'est beneen affaire. je suis d'accord. u club. ak dirigeant yi nga xam ne ñoom ñoo opté. pour jël boo ñëwee mën nañ la isoler. terrain bi ñoom ñooy yore bal bi buñ la buggulee paas duñ la paas.